entre subi par Maimouna Ndour fay euh, ban gis-gis nga ci am yow noo ko noo ko noo ko noo ko noo ko jàngatee waaw di ko di ko naqarlu ba fu naqarul mën a yem euh, ndax waxuma soo jëf ji waaye ci ndodd ki ñu ko teg mhm. nga dama dégg sax ci kàllaama ñu naan meurtre mais ñu ñu def droit ni mbir mi demee ak ni ñu ko xaaree ba mun a egg ci moom def loolu loolu lu ñuy wax tentative d'assassinat la parce que ma dugg ci mais entre meurtre mhm. assassinat tentative ki ñoom ba ñu la xaar di la xaaj ba nu waxtu nga ñëw mu lay topp di demee noonu kooku tentative d'assassinat laa ko mën a woowee. Mhm. di ko metti lu di bokkoo naqar bi njabootam si ma nee njabootam nag mooy waa këram ay mbokkam dëkkaay waaye nag e, ci jiital yi ñi nga xam ne yaa nekk moom ci liggéey bi. muy nekk liggéey boo xam ni. Mhm. lii yëpp nekk gor nekk jàmbaar bañ a nooteel ndax tey xëy suba rek attaque ko am na ñoo xam ni bëgg naa ñuy wax maanaam seen kuréel yi nga xam ne yàlla bokk liggéey bi adduna mu si soppeeku ba ñu xëy suba song leen comme ni ñu ko songee moom. Mhm. kon xam nañu li xew. donc li li yëngu li ko yëngalu ko podoole. yéen ñaar daan ngeen am ay divergence mais da ngay wax li la metti tontu bu ko jaree fa la mës a yam mais maintenant li ñu gis mooy euh, nit ki bu ngeen déggoowul. ay menaces mën na am euh, cette fois-ci on a levé la main sur une journaliste enquête bi dana wane lan moo xew concrètement mais euh, xel dafa tey ci ci ci lu bëree bëri. mën na sax du benn du ñaar ci ay plateau Abdou Mbow ma fi ñëw bërki démb mais nañ ko nangu loo xam ni wax dëgg yàlla euh, ku nekk dégg sa bàmmeel. Mhm. dafa am xam-xam bi xam nga journaliste il faut ngeen baal ma daal code de la presse. Mhm. bugguma ci dellu si waat mais nga xam ne moom dañ ko nàmpal mu teel xam lan mooy journalisme. xam lan mooy waree fam farul fenn mhm. yenn saa yi bu ñëw ñun la nekkal mais yenn saa yi sax ñu ànd ak moom sax li ñu li ñu ci jëlee mersa yenn saa boo ko xoolee muy man di keneen li mhm. ci fekk ñeneen kon tey ji moom li ñu naatoo di ko xëppatal du ko jéem a tiital du benn du ñaar am na yoo xam sax jot ko wax xëy na mhm. kon ki xam ne xëy na suba moom amul garde corps wutul kenn di jigéen dem ba foofu nga xam ni kon moom jox na boppam yàlla bu yàgg tey soog a ñëw kon wax dëgg yàlla euh, métti la jox na exemple tamit que presque comme soldat la rek que jàmbaar parce que yaakaar nañu rey ay nit sax lu na la ci fekk kon defe naa tey moom royukaay la. jërëjëf te du benn du ñaar te yaakaar naa ne su mel ni ñenn ñi ni ñu mel. Mhm. kon tey du ko ci fekk kon yaakaar naa ni kon gàcce ngaalaama Sénégal bi nga la gis say moromu jigéen jéppiwuñ la ñi nga liggéey te jépp ko loolu ñuy xaar ci waa presse.